وجهت xanaa bu ñu sante yàlla julli Yonent bi euh, sant Serigne Touba euh, vraiment tam di gërëm bu baax APS ci liggéey bu rafet bi nga xam ne liggéey nañ ko ah, balaa màggal gi tàmbale ak ci biir màggal gi am yaakaar it après màggal gi euh, ñu def liggéey bu mag boo xam ne li ñu bind ni muy journal bi def ko ci arab def ko ci euh, français euh, sëñ bi démb rek biñ ko ci pré présenté Cheikh Mouhamadou Mountakha euh, mu gis arab bi daf cee bég mu ne moom sax daf doon dem di yónnee Égypte ngir ñu jëndal ko journal li nga xam ne arab lañ koy bind kon nag ñoom bu ñu amee xalaatu bind ko ci arab indi ko fii ci tubaa ngir indi ndax fa tubaa bu mu mbuuf ñëwee daanaka mun naa ne soixante-dix pour cent yi arab lañ dégg

Euh, defe naa li mu def tamit lu rëy la xam naa duñ jëlee ci journal bi incha allah suba dinañ ko dem yóbbul xalif bi euh, comme ça mu mu xool ko moom tamit bu baax a baax defe naa daal loolu mooy li nga xam ne mooy lu bees ci liggéeyu communication ak culture ci màggalu Touba di sant Thierno bu baax ci taxawaayam ci màggalu Touba bi ak lu jiitu màggal gi moom defe naa jamono ju nekk lépp lu xew Touba rek. Euh, dina ci liggéey liggéey bu mag te bu ci liggéeyee ba noppi bala mu cee def dara dina ko yónnee ñi nga xam ne ñoo yor communication ak culture ci dëkk bi bañ xool ko ba noppi mu koy doog a publier def naa loolu nag lu am solo la te loolu lañ soxla fii ci dëkk bi daal ndax dëkku ndigal lañ nekk ñun lu sëñ bi wax rek ci loolu la ñuy tënku te defe naa journal bi neex na sëñ bi ndax toog naa sëñ bi wax ci kon nag loolu moom euh, sant nañ ci bu baax.